waa ji mu ne daanoo ko. nee na daanoo ko ah, na yow def nga quatre appui. Hmm. waaw. moom nañ génne ñaari angle yi. waaw ñu teg ko. waaw moom toogul dafa dëju. xam nga dëjoog toog bokkul dafa dëju. dafa dëju lii de action boobu ko koy laaj mais moom nee na toogul ah. waaw moom nee toogul mais xam nga stade bi. Hmm. nit ñi du gis caméra day fen noo. non non du fen. léegi nañ ko génne waaw. caméra da koy génne moo koy génne. caméra dañ koy génne. waaw ok mais action bi nga koy wax mu toog yow ni toog na yow foofu defoo fa mais xanaa ma dégg Mamadou Mbaye bu ñuy constaté ci site bi bu ñu koy fu site bi jugee. première foofu la ñuy njëkkee appuyer foofu. ok appuyer foofu ba pare. ok waaw kay. bu ñu appuyer foofu ba pare moom toogul dafa dëju. Hmm. dafa dëju ndax munoo munoo munoo ma daw dóor ko tànk mu def demi-flexion. sama ñaari loxo yi nekk si nopp ngemb yi ba pare mu écarté toog si saaku bi isa xamal ma la toog si saaku boobu mu toog si saaku bi moo tax mu am rotation pour mën a pëfetu waat. mais booy gis ngeen li ngeen bëre foofu dafa la doon nga dóor ko tànk. loolu lépp gis ngeen xeetu bëre bi ngeen fa bëre waaw ndax xam ma parce que moom dafa jàpp ne moom moo ma dàq bëre. moom dafa jàpp ne moom moo ma dàq bëre. moom loolu la jàppoon si xelam moom ma dàq bëre fuuf loolu la jàppee moom ba ma ko dóoree tànk bëggaatul si bëre bi dara moom moo jaay ko mbaam ndax moom sëgg naa man ba arbitre bi soufflé bu ma ñëwee génnaat sëgg naa di jël suuf mu dóor ma épercule bu dal. mu dóor ma épercule bu dal kon bu fekkoon damaa xawaat a nekkuma ak sama xel rek damay daw songu. kon su ma dawee songu kon man ni ma ko daanee moom noonu la may daanee. ok ndax moom man ak moom dañoo xool dafa deuxième action dafa ñëw mu dóor ma épercule. Hmm. ma siggi. waaw dóor ko gauche dóoraat ko droite góoraat ko gauche tàkk si kawam. ërtal hmm. ko. mu daw arrière daw duggaat sóobuwaat daw di ma mbot ñu ànd si suuf si biir si suuf si laa ko yokk moom foofu nee na yow foofu yaa jiitu yaa njëkk a yegg xamul ndax ma ne foofu yëpp moom loolu yëpp muy langaamu yooyu yëpp xam la laa koy gëmloo lan laa koy wax benn conseil laa ko jox mu takkaat daal yi dem entraîner te xam ne moom Baye Fall la mu takkaat daal yi dem entrainement xam ne moom Baye Fall la mu takkaat daal yi dem entraînement teguwaat si yoonam mm. loolu kese loolu nga koy waaw loolu laa koy wax. ok ñu ñëw ci làmb ji wàccaayu kombaa bi coow li Pokola Boulal laal ñeenti at la toog bëriwul yow yaa ngi ci dynamique de victoire seen combat coow pourquoi. waaw pourquoi làmb la rek làmb la rek làmb la rek dañ doon bëree man ak moom làmb ji bëri woon na coow mais jeex na si jàmm yàlla may na ma ndam. Pikine nag jàmm gën la wala yéen seen écurie ba xiifante. Pikine nag jàmm gën la. ok waaw saa yu ñu noonu lay mel. saa ñu dajee noonu lay mel. moom waaw saa bu ñu dajee noonu lay mel. xanaa doo ma dégg Modou Mbaye bu laal man dama ko dàq bëre. non dama ko dàq bëre. maa man nanguwuma Modou Mbaye maa làmb ji ba mu démarré ba lépp maa def prise yëpp. maa dox si kawam maa xeex maa bëre maa def lépp. maa animé stade bi. bu laal taxawul di la seetaan déggoo ma de maa stade bi. bu laal taxawul di la seetaan bu laal dal na sax song na tàq na sa kaw de. bu laal bu tàqee sama kaw yooyu yëpp dëgg la. mais nit ki dégg ma tàq si kaw. Hmm. nit ki mun nga tàq si kawam mais est-ce que ngay tàq seen kaw ñu am maîtrise pour accompagner la téye la est nit ñi bokk ñu maîtriser la quoi maîtriser la dafa tàq na sama kaw dama koy nangul mais dama ànd ak maîtrise hmm. di ko déglu am na loo xam ne dama koy nangu mooma njëkk a bëre mais lépp man sama làmb yi ban décision laa si jël lépp li may def day gaaw ok waaw ndax xale laa si yoon laa nekk tey jii su ma bëreewuloon lu dul yoon amoo complexe ndegam da ngay taxaw mbër bu ma ëpp dara fuuf wax ko ne ko lii nga def lii ak nii mais damaa ñëw bëre si bëre xale. amaat la bëre la stade bi neex. mais ñëw ma fa bëre fa bëre yaafus. voilà Sénégal kii kii di la seetaan nii mi ngi lay soog a gis tey xamu wax ko yaay kan sénégalais bii di la seetaan lu garaaw laa la wax nii sénégalais bii toog di la seetaan bari na ci ay sénégalais xam tey jii lañ lay soog a gis lañ lay soog a découvrir ñu ngi nii toog di la seetaan waxal ak ñoom. waaw sénégalais di leen ñoom ñëpp rek. di jox seen di leen jox seen waa ci xam ne li ñu bëgg fuuf man maa leen gën a bëgg. ba pare ma wax dolli la ci loolu dañ la xam tey bëgg la. Sénégal ñëpp bëgg la. ndax parce que jàmbaar da koy bëgg fa la force. mooy bëgg jàmbaar waaw jàmbaar da koy bëgg fa la force. tarkindaa yi benn message laa leen yóbbante ñu góorgóorlu daw jàmbaar. Eh, man tarkindaa laa mais yow yow mënoo doon tarkindaa. moo Mbaye yow fi nga toog suuf sii nga bokk yow nitu Pikine nga <laughs> xanaa doo ma dégg de. Mm-hmm. nañ góorgóorlu ñoom ñu daw jàmbaar wax laa lay wax nañ góorgóorlu daw jàmbaar. daw jàmbaar. am na loo xam ne ni daw jàmbaar yow yaa ngi nii da daw jàmbaar. dangay xëy di liggéey doo talal kenn sa loxo. di daw rek amul arrêt. di di daw sa jàmbaar lijjanti woo kenn nekk sa liggéey. di góor góorgóorlu di daw jàmbaar mais làmb fu ñu bëgg teg ñoom si làmb loolu du làmb def seen flocage yooyu taxaw wax. def seen yii ñun tous nii ak nii yaakaar ne fii luñ taxaw wax ma yaa koo si mënta bëréel yéen ñaaree dugg si biir géew bi affaire bi loolu la nañ dem entraîné ji teg ko si yoon entraîné lu ñu war a entraîné moo gën ñu bàyyi wax ji seen wax ji ñoom dafa bëri li ñuy wax dafa bëri nañ dem entraîné ñoom ñëpp xanaa dooma dégg bu ñu rangaloon arène nationale ma daan leen bañ jeex Pokola ak Bulaal ñoo bëree mais niñ def arène bi ay mbër yu leen mag fukki junni yoon bëri nañ te defu leen nii arène defu ñu nii arène bi. moom mbay di profité sant waa maa ngi sant Pikine bi yëpp but ba but maa ngi sant Pikine bi yëpp yëpp yëpp yëpp ma seen fay. korog mas as Pikine dafa mel ne man maa doon bëree. vidéo yi booy mën nañ la ko tegal fii buñ ko yoree barki yàlla mas as Pikine bi nii vidéo yi bu ko booy yoree nañ la ko wan. ndeysaan te bi moom po après yónnee ma ko moment bi gars yi ñu ngi joué ndeysaan gars yi di ko ku ma si jël rek nag ma jël heure bi ku ma si jëlul heure bi boo demee ba si kanam bëgg xaalis dina la coûter cher waaw mais Paco fi nga jëm moo gën a metti fi ngay jóge de fan fi nga jëm moo gën a metti li ngay bàyyi de. fu ma jëm xam nga lu tax ma ne Modou Ndoye fu ma jëm lu tax ma nangu ko. fu ma jëm xam nga lu tax ma nangu ko. Ah. fu ma jëm xam nga lu tax ma nangu ko. Modou Mbaye man dama mën a bëre poids lourd chaque jour xam naa ne yaa ngi koy soog dégg fekkee da ngay sama interview. non dégg naa damaa mën bëre poids lourd xanaa déggoo ma ne lu mu gën a diis diis lu mu gën a rëy rëy rëy arrangé na ma hmm? lu ma bëgg a def dama koy def Modou Mbaye dama gars yi jël may ma chance léegi ngeen Lac Rose nga wax. Lac laa léegi teel na léegi Lac Rose teel na waxal keneen ci diggante bi booy génn si rek. waaw booy xaare rek Lac Rose sama suñu mbër la ñun xam nga bu leen ko def bu leen def nii xaar leen tuuti mu préparé dem defaru ba pare waaye leen affaire yi waxal keneen waa xaar ba mu pare. bu baaxul loolu ma xoolal ku baax. ma xool ku baax. ku baax xoolal. man keroog waxoon naa la waxoon naa la keroog ne la Colifay 2 sa adversaire la Pape Ndoye sa adversaire la. bu bëggee Pape moom ñoom ñaar ku bëgg. waaw Colifay 2 bu bëggee. waaw waaw. man dañuy waxtaan si xel. Colifay 2 sama moroom moo ko daan. Colifay sama morom moo ko daan. waaw. Ada Fass. waaw normalement bu ñu waxtaanee si xel bañ a naxante. Colifay 2 dafa teg la trois défaites man ma teg la trois grands combats. waaw yëpp ay victoire moom mu teg la trois défaites kon bu ñu waxtaanee si xel rek moom normalement bu ñu waxtaanee si logique man maa gën a tegu si ligne bi bu ñu waxtaanee comme si waxtaan maa gën a dëgg la nag moo ëpp ay combat moo ma ëpp ay combat mais teewul bu ñu waxtaanee si logique ak moom bokkuñu. période bii nii période bii bokkuñu yoon. bu góorgóorloo daw jàmbaar ba si kanam nag. man ak moom mun nañoo bëre. mais bu xanaa moom muy njuuj njaaj. man bañuma leen. mais am na benn final am na ñaari final sax yu ma gis yooyu xam naa xëy na ci kanam di ngeen ko bëree mais Thiat Daouda Fall di ngeen bëree. pour. Thiat Daouda Fall doo leen pour lan. non damay laaj ndax di ngeen bëree. waa pour lan. luy loolu. pour li nga wax pour. pour wax la. Thiat Thiat Daouda Fall sa adversaire la. pour pour lu tax man ak moom pour. pour. bëre pour. lu tax doo leen bëre. mun mbay mënuma fe damaa bëreeg samay morom. waaw ah damaa bëreeg samay morom. ah yi nag ñoo war a may sens. xaaral ma dégg li ma la wax ne naa si mag ñi foog am quatre booy wex yu fa dugg. naan nii quatre booy bu ñu demee ba si si kaw ñu croiser leen. waaw am ñaar ñu dem bàyyi fi oh! loolu dina si kanam de. lamb keroog maa ngi koy wax T-Max. bi nga bëree ba pare da bëree ba pare moom moo toog ci plateau bi ma ne ko. seen seen génération dafa metti balaa cee mbër a percé di dem ci kaw dina génn ay argument yu leer. waaw argument yu leer yooyu yëpp sérieusement benn lekk benn lekk moo si gën a sérieux benn lekk moo si sérieux benn lekk laa xam ne nii foog nga boo ko moom moom boo ko sérieux ma xam ne mun nga see mun nga see sori moom mooy mbër dëgg la weñ si la bokk. poids si la bokk mais mbër foog ngay liggéey tànk entraînement dafa baax mooy fondement mbër. man dëgg la làmb yàlla nag moom suturaal lu bari bari mais lu bari bari bari bari bëri bëri nii des na desul mais yàlla moom mooy suturaal mais bu lépp ñëwee si lañ soo xam ne maa ngi soog a mat rab waaw maa ngi soog a mat rab waaw. ah yow de boo matee rab kon xaw ma fu ñu jëm yàlla bu ma jóg. walaay sama grand yi nañ ma may sens man gis naa si ñoo xam ne ni Modou Mbaye nekkul xasar wala nekkul dara man gis naa si ñoo xam ne ni ma seetaan leen xam ne su ma góorgóorloo tuuti am na lu ma bëgg su ma su at bi soufflé man ak moom ku ma si ne mii nga daanu dama tudd tur mais gis naa si ñoo xam ne ñu ngi si làmb nii di ko yëngal ma liir leen bu baax bu ma yàlla defalee jàmm gis naa fii ak deux ans si kanam bu arbitre soufflé ku ma si gëdd gëdd gëdd sax nga jébal ma sama làmb dem ñibbi man loolu leer na ma man si kaw man si kaw si la man maay xam li ma bëgg si kaw mal la man maay xam li ma bëgg. bàyyi leen ko mu yeggali. si kaw mal la man maay xool li ma bëgg man ma ma di ko def. man gis naa si ñoo xam ne man maa leen man Poko lu mu bëgg si làmb. lu ma bëgg si làmb tabaxal sama yaay kër. macha allah jëndal sama nijaay si Balde 4-4. xool oto bi nu mu mel. màgget na de. non màggetul làmb ji la. màgget na mu yóbboon stade. oto bi. waaw gis nga. ndimbali samay mbokku taalibe. ndeysaan xanaa doo mën am na loo xam nii. fii nit ku si nekk sa àdduna li nga war a lekk la ngay lekk mais suñ constatif lañu am dañoo bëgg a dimbali suñuy waay dimbali suñu mbokku taalibe Mourou Mbaye lu topp suñ ginnaaw dafa bëri Mourou Mbaye instant bi ñun ñun booy Pikine yi waxuma la man sax mais erreur waratuñu erreur waratuñu si làmb dañoo ñu bañ na ko sax dañoo ñëw ba xool xamatuñ suñ def arène nationale ñun ñoo fi dese stade ñu defar ñu ko. voilà fàtte naa ko booy jàmm nga ni ñu ne fii du seen toolu maam yéen ñoom seen toolu maam la yéen xaw ma seen maam lan. gis nga ñooñu nga ñooñu gis nga ñooñu xamul ndax man du ma profité xamul moo tax ma ne man ñooñ du ma wax si ñoom xamul ndax ma ne man ñoom du wax si ñoom ñoom li ñuy wax ak lu nekk si ñoom bokkul moom may ñooñu bu ñuy bu ñuy wax sax ñuy wax sax daanaka sax ay ay interview la mais ñooñu bu ñu dajee sax bu ñu dajee ñoom bu ñu njëkkee gis dañuy fente wala dañuy wàññi yoon bu ñu gis dañuy fente géem si biir géem. acca léegi. jàmm gën. am naa fa mbokk sama kër maam mu ngi fa isa may dégg am naa fa ay mbokku taalibe mais am na si ñoo xam ne daw ñu jàmbaar ay tooñkat lañ mais am na si ñoo xam ne duñ tooñ duñ dugg seen yoon nekkut si lu baax la ñuy dox si dox si jàmm la ñuy dox mais foo gis nag am na loolu mais ñoom xam nañ ma bu baax a baax su ne ko ne xaa dégg bu recrutement amoon bu recrutement amoon comme làmb ñu da ngay jékki-jékki léegi recruter bu recrutement amoon ñoom dañ may recruter. jënd waaw ñoom dañ may jënd. transfert te dañ may transféré man loolu xam naa ko. Hmm? bu recrutement amoon ñoom dañ may jënd. di nuyu waa Kaku di nuyu waa waa bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp di nuyu waa mafia foxos joxos bi bu baax a baax waa mafia asem waa mafia suus. maa ngi baaxul. mafia suus bi waa mafia suus bi di leen bëggee di nuyu waa Defro bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waa Afia waa Afia maa leen di nuyu bu baax baax. Afia sonn nañ de. maa leen di a baax waa Cité Pépinière waa Cité Pépinière maa leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Cité 2 Cité 1 Cité 3 ba jamono ba biir ginnaaw raay bi gétoo bi yëpp maa leen di nuyu bu baax a baax waa Texaco maa leen nuyu bu baax baax waa Tali bees maa leen nuyu. maa ngi nuyu ASC yi nekk Pikine yëpp di nuyu waa cosaan baax a baax a baax di nuyu Sida waa Sida Paris bii ma dëkk tamit di leen nuyu ndax su may bëree ñoom ñëpp dañuy sonn duñ nelaw waa école neuf maa leen nuyu bu baax a baax waa sixième sens waa Miami. xoromu làmb ji dañagul. waa Miami maa leen nuyu bu baax a baax waa neuf di nuyu waa Seras bu baax a baax a baax di nuyu ku si nekk di bu baax a baax a baax a baax waaw jàpp na si làmb ji ay ñoom lëri ay ñoom Tafa di si nuyu ay ñoom Abdou Diouf booy nekk ay ñoom Bamba Bamba Bamba. Abdou Diouf ah. Bamba sa xarit boobu Abdou Diouf ba sa xarit bu ñu jool waaw Bamba di nuyu Bamba Gaye ñoom Baye Serigne <laughs> ñoom Ibou Ndiago ñoom Palaay ñoom Tafa di nuyu ñoom Saare Gueye ñoom Badiane ah, Aline Meng moo daanoon Lamine Ñendal di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Babacar Palaay Pam Ndong maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu gars yëpp gars di nuyu Baye Fall yëpp ñoom Baxaw ñoom Thier Aliou Pape di nuyu ñëpp daal ku si nekk daal Baye di nuyu sama mbokku lawbe yi nag bu baax a baax a baax lawbe yëpp maa leen nuyu nag. lawbe Sénégal lawbe Sénégal yëpp ak bool bool yëpp maa leen di nuyu. di profité di nuyu booy yëpp nag ku si mel ne ay ñoom Abdallah. laa ma jàmm un jour ma ma maa ngi màkk xaw ma màkk Koulibanta xaw ma booy yow fi nga yóbbu waa ji sori na nag booy yow booy yow doy nga waar. non moom Mbaye ndax xam nga làmb ji boobu ngay. dégg moo ma ko maa ngi xoolal Kousanaar. ma ne yee bu laaraam. waaw ku jóge si ñoom laa la wax ni sama waay la mais chaque jour dafa ma doon woo di ma napp. naa ma wallaay yow xamoo ni lii nga dogoo. kan booy bi wallaay xam ko seen njool mi léegi. naan ma bi wallaay yow neex naan ma booy. xam yow booy badu bu laal waaye ko waaye nag contact ak ordinateur. <laughs> di ko ñoom xam nga nag ay waay lañ nag ñun ñoom ay waay ñoom dañoo neex waa xam nga ñoom dañoo toll benn période xam ne ñoom dañuy toll benn période boo xam ne ñoom yàlla ma yàlla jégal si kàddu gi sax bu yàlla doon wàccee eh, asamaan. ñoom ñoo xew arrêté dañ naan eh, ñoom ñoo xew. waaw léegi dama leen nangul ñoom ay jàpp ñoom ñoom dama leen ñoom ñoo xew ñoom ñoo xew. ñoom dañoo xew wax dëgg yàlla ñoom dañoo xew mais dëgg la mais xew-xew yi dafa am xew xew yi dafa am jamono jii Poko Poko dafa nekk si yoonam te xew ma xew xewu làmb xew Baye Fall man jeunesse bi si ay cant lañ ma toppee Modou Mbaye man damay dem cant Modou Mbaye damay dem cant Modou Mbaye man damay dox si si wàllu Baye Fall booy. mbër day récupéré de. déggoo ma de déggoo ma sama ginnaaw ki nga si fekk ki yaakaar tey ëllëg. moom ñëpp yaakaar. ku tedd ki kii moo tax Sénégal am jàmm kii dañ ko war a sant gërëm ko kenn sëñ Tuubaa Modou Mbaye man damay topp damay damay toog. booy yëpp ku si toog fii ku si nekk ku nekk laaj ko nag ñoom yëpp ay Baay Faal ku si nekk mos naa xewee cant ma sewal la et bu fekkee dinaa dem def benn dix minutes naa ñawaat moo may booy nii mënu ma leen fay barki maam Seera Fall mënu ma leen fay man fay damay dégg lu nekk ndax ñoom damay dégg lu nekk ndax ñoom booy nii ñoom ñëpp aw ma ku leen wax ku leen xeeb man jàpp na da nga may da nga maa xeeb di leen ñaanal jàmm yow yaa xam li nga bëgg ak ki nga àndal bu baax a baax lex yàgg lex si leen a xam li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defaral Père Bégaay neexoon nag sama invitation bi. <laughs> waaw Lady Tigre. waaw neexoon damay ñëw. Père Bégaay. Lady Tigre Bantamba TV bu mag bi euh, pencum làmb ji. pencum làmb ji. waaw Père Bégaay invité ma damay ñëw. waa di nuyu sama papa Tafa Gueye bu baax a baax a baax di profité di ko nuyu. moom sama papa la sama lépp la fépp fu ma denante ak moom daf may jox consigne bu baax. Mm. waaw ma famille làmb yëpp. Père Père Boy Kayré sax. papa ñoom Mbañik su ma dayante ak moom daf may jox. ñooñu say samay papa lañ Balla Gaye numéro un. Père Tafa Père Tafa mos def ay di tigre muy wax ci yow quoi muy wax ci yow ba mu yàgg mu ne kooku c'est mon fils mu ne Pokola sama doom la ndax maag papaa ma daan ànd di bëre. loolu dëgg la Père Tafa Gaye moo sam papa ñoo daan ànd di bëre Modou Mbaye man sam papa def lu mu nekk ci làmb. mais jamono yooyu làmb naa sa papa ku mënoon bëre mënoon bëre la jëluma ko sax ci taay. waaw dégg naa toll na ni Tafatine. wallaay azim toll nañ tafaatin boo koy xayma. Ah. kon kooku ñu jëloo ko ci taay. jëluma ko ci taay famille bi laa xaw a jël. zil zil zil. <laughs> sa tonton Ama nga jël kay gàttaay zil zil zil moo wàllu gàttaay zil. <laughs> mais kontaan naa ci yow. waaw di la jox sa wàccuwaay man daal naa la xamal leen di lancer message nag cant gi samedi la. maa si woo Kuluxum Baye Fall. maa si woo Kuluxum Baye Fall. te woo ñoom Bula. ñoom ñoom ñëpp xaj nañ ci nañ ñëw. ñoom ñëpp ñoo bokk sëriñ ñoom ñëpp xaj nañ ci nañ ñëw évidence ñëpp di si woo nag sama xarit Fallou Kabaro maa ngi ko si woo bu baax a baax a baax cant gi cantam la ak tamit Galas Kàkku maa Ibrahima Mbacke maa ngi si woo ñëpp maa ngi si woo tamit Xalil Petit Laay ak Moutar tamit bu tëngeej maa ngi si woo Baye Fall yëpp si ko réer yëpp maa leen di woo si cant gi samedi la di si woo tamit Baye Daaru yëpp di si woo tamit alal ateex yëpp taalibi sëñ Abdou Karim waa kër sëñ Cheikh Ndigal yi di si woo ñëpp daal maa ngi woo si gi daal samedi la di si woo Kuluxum waaw di ñaan Sénégal yàlla si yàlla def jàmm bu wér a wér a wér a wér ah, moonu ancé ah, waa ah, Afia waa Afia suñu akoñ ki woo na leen bon incha allah bu yàlla dogalee loolu kabiyaat sama xarit bi maa ngi koy nuyu cant yi maay takk contingent bi teel leen ñëw maay takk contingent bi maay Amada ñu tàmbali cant gi bàyyi kontaan nañ kontaan nañ ci sénégalais yëpp kontaan nañu ci yéen ñi jàppoo doon suivre Bantamba yëpp kontaan nañ ci ñaari xale yi bëri dimanche kontaan nañu ci promoteur bi ko tëgg tëgg nga combat espoir tëgg nga combat bi ñu bëgg bi nga xamante ne moom la sénégalais moom la amateurs yi bëgg ñuy am muy làmb yu am solo xale yi bëri nañu joxe nañ argument yu leer ñu ngi leen di féliciter ñoom ñaar ñëpp bu laal tapas démérité def nga li nga war a def parce que toog quatre ans te bëriwuloo nga ñëw wane argument yi dafa dafa raar Pokola dafa nekk ci lancé dafa nekk ci yoon boo xamante ne xëy na daf la xaw a ëpp compétition loolu bokk na ci li nga xamante ne xaw na la mais jàmbaar nga jàmbaar dëgg nga yal yàlla sàmm la leeral sa yoon dafa la jàmm bu baax a baax Pokola lu mu jàppoon loo gënoon jàpp ci waa pikin gën leen a jàpp man li ma gis ñu defal la ko ci sa génération defalaguñ ko kenn gënal jàpp xaw ma lan nga def Pikine xaw ma lan nga defal waa Pikine mais gën leen jàpp nga gën a góorgóorlu entraînement yi dégg naa dofu entraînement nga mais yokkal bul bàyyi Sada Gueye mënul ñaax mu sànni ci ñaari kaddu Sadou. waaw Mourou bañ sant yàlla julli ci yonente bi sant suñuy ñaari waajur di sant waa Pikine yëpp macha allah. waaw moo Modou jox nga ma fi ma war a waxee parce que kii da di sama doom di sama jarbaat waaw mu am combat moog bul laal drapeau bii nag laay lancer défi rek di wax nante yi nañ ma bàyyi ak drapeau parce que komba bi maa tax mu taxaw loolu noonu muy firnaa ne dafa daan booy molom ma tëgg trois combats am yàlla dafa def maa ko débuté ci troisième combat am la bëre ak booy meloom jégg ci kaw fekk jour boobu amuñu xaalis ñu yëg ci kaw di ket xam nga rek mbër bu daanee jël bu rafet boo yëgee ci kaw amateur dañ lay may xaalis ñu yëg ci kaw di laaj xaalis bu laal def ñu lum ñu war a def bette ñu ginnaaw mu def ak moom la mu ko war a def comme bu bëri troisième grand combat am jël drapeau bi may ma ko na ko naan tey bàyyi man di ko ñaanal nag di santaat waa Pikine yëpp di santaat Baye Fall di leen woo ci ket bi ak alew barki Mouhamed sama drapeau la di ko ñaanal yàlla na doon roi des arènes Modou ku ko war a jël na ko jël waaw ku ku mën a ku mën a niil ak moom instant bi du daanu ku mën a niil ak moom instant bi na niil ak moom wallahi azim amul xëy fas la doon dawal bàyyi na dawal fas jël fas bi sax maye ko entraînement lay def ci kanam tuuti boo ñëwee saal di ko fekk muy entraînement